أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحللا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen rek ci ay bis bu jot di fàttalante ak yéen ci lenn lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu doon ànd ak yéen ci suñu bind yi weesu yépp ci téeréem bi nga xam ne moo tudd Munawwirus Sudur te ñu taxawoon ci bunt bi nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne mooy leeral bàkkaar yi nga xam ne da di bàkkaar yu mag yoo xam ne jullit bi war na ko moytandiku bu baax a baax a baax doonte ne bàkkaar yu ndaw yi ak yu mag yi waruñu cee xeeb benn ba tax ñu koy def waaye nag yanu ca gën a war a moytandiku mooy bàkkaar yu mag yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tënk ci bunt bi te mu wax ne mi ngi toll ci ñaar fukki bàkkaar te ñu leeraloon ci ñeent yi nga xam ne moom la ab xol jagoo ci bàkkaar yooyu waaye leeraloon benn ci yi nga xam ne ay loxo moom moo ko jagoo mu mel ni ay loxo jagowut benn bàkkaar boobu nga xam ne moom lañ leeral keroog dong mu di rey waaye it jagoo na beneen bàkkaar boo xam ne moom ay loxo moo koy def te loolee moo di lan moo di sàcc ñu koy tudde as sariqa kon loolu mooy ñaareelu bàkkaar bi nga xam ne loxo moom mooy ki nga xam ne moo ko jagoo kon ci bind bi weesu leeraloon nañ li nga xam ne moo di ray ak atte yi nga xam ne moo ci am ci noonu la ñuy continuer leeralal leen li nga xam ne mooy sàcc ak li nga xam ne moo ci aju sàcc nag bu ñu ko waxee mbokk yi mooy jël alal joo xam ne moomoo ko te boroom mi ko moom sàmmoon na ko ñoŋal ko ba làq ko foo xam ne jàpp na ne kenn mënu fa egg ku dut moom maanaam waslu na ci àqam ba sàmm ko ñoŋal ko aar ko ngir lan ngir bañ benn loxo boo xam ne moomu ko man fa egg loolu moo di loolu moo di ak sàcc léegi nag su fekkee ne nit dafa jaar te ginnaaw dem jël alal joojee nga xam ne moom la boroom sàmme woon noonu ba aar ko def ko noonu saa bu ko nit ki jaaree ginnaaw jël ko loolee moom la ñuy tuddee sàcc waaye nag dafa am ay charte charte ya mooy lan mooy ki nga xam ne moo sàcc dafa war a nekk mu kàllaf kon xale bu ndaw su fekkoon ne dafa sàcc te majeurut amut am xel kooka atte yi nga xam ne moo war a dal ci ab sàcc ci lislaam atte yooyu mën na ko bañ a dal ndax du mu kàllaf mën naa am la nga xam ne moom lay def am xelam xamu ko wala ba mu koy def sax xamut lan moo ko def loo kon faw ki nga xam ne moo moom la ñuy tudde ab sàcc day nekk mu kàllaf ñaareel ba itam nit du sàcc rek ñu ne kii de dafa dafa dafa sàcc wala li mu sàcc faw day am benn kem moo xam ne moom lay toll su ko defee ñu doo koo mën a tudde sàcc dëgg-dëgg doo ko mën a àtte li nga xam ne moo di àtteeb li nga xam ne moo di sàcc te loolu bi nga xamee ne borom xam-xam yi xayma nañ ko wax nañ ne mi ngi tolloo ak rubon dinar kon rubon dinar saa boo xamee ne mu kallaf sàcc na ko te ki nga xam ne moom moom alal ji làqoon na ko fu sore sori ba denc ko ñoŋol ko loolu ay sart la yoo xam ne su dajee ñu mën a jàpp ne kii nga xam ne moom la ñuy jiiñ sàcc gi ab sàcc dëgg dëgg la beneen ba itam faww ki nga xam ne moom la ñuy jiiñ sàcc gi na bañ a moom alal ji ndax kenn du moom alalam di ko sàcc waaye it na bañ a nuru it ku moom alal ji waaye bu mu taqe dara ci alal ji bu mu ca laale dara waaye su fekkoon ne daf koo bokk ak nit mën nañoo jàpp ne loola kenn du ko mën a saxalal di ko tudde ak sàcc waaye it li nga xam ne mooy charia faw mu saxal ay leeral maanaam faw mu saxal loo xam ne moom mooy dëggal ne kii dëgg-dëgg dafa sàcc kon faw ay seede mënu caa ñàkk kon saa boo xamee ne loolu nga xam ne mooy sart yooyu daje na mooy ki nga xam ne moo sàcc mu kàllaf la te li mu sàcc mat na nisaa bu koo xam ku ko sàcc ñu war a jëf ci yow atteb sarian te it mi ngi ko jële ci place boo xam ne borom ñoŋoloon na ko ba jàppoon ne loxo mënu faa egg te it moom mi nga xam ne moom la ñuy wax ne mooy sàcc bi moomut alal ji nuruwut ku moom alal ji te it sax na ci ay seede yu leer nañ ne moom moo sàcc alal ji bu boobaa kooka la ñuy doog a jëfe ci moom li nga xam ne moo di atteb sarian su fekkee ne ca réew mooma sarian maa ngi fay dox ñu ngi koy atte woo kon loolu di lu ama am solo loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la waaye nag la nga xam ne moo di atte ba nga xam ne moo ca war dëgg-dëgg te alquranul karim leeral ñu ko mooy ne na sàcc moo xam sàcc bu góor la wala bu jigéen saa boo xamee ne sàcc na loo xam ne lu mat nisaab la la nga xam ne moom la ñu war a jëflante ak moom mooy dañoo war a dagg ab loxoom fi nga xam ne moom la jigéen di takk jara wala bu dee góor fi nga xam ne fa lay takk montar loolu dañ koo war a dagg loolu dañ koo war a dagg moo tax alquranul karim di wax ne assaariqu wa saariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalan min allahi wallahu azizun hakim ne na kon sàcc bu góor ak bu jigéen ñoo ci yem képp koo xam ne sàcc nga la nga xam ne mooy atteeb lislaam ginnaaw ba nga xamee ne la nga sàcc mat na nisaab mooy ñu dagg sa ab loxo sàcc nag du ñu tëb rek ne nit ki dafa sàcc waaye faw am luy lu lu saxal ne kii dafa sàcc la koy saxal nag ñaari mbir la ñaari mbir ya koy saxal benn ba ca jiitu mooy ki nga xam ne moo sàcc ñëw saxalal boppam ne man mii kat dama sàcc ki nga xam ne moo sàcc saxalal boppam ne dama sàcc su ko defee ñu xool sart ya nga xam ne moom la ñu waxoon ci kaw su fekkee ne daje na ñu gàll ci moom li nga xam ne moo di atteb charia su fekkee ne dajewut nag su ko defee bu boobaa deesut mën a gàll ci moom la nga xam ne mooy atte boobee nga xam ne mooy dagg loxo ba ñaareel ba itam ci li nga xam ne mooy tax ñu saxal ne nit ki dafa sàcc mooy faw ñu am ñaari seere yu góor yu maandu yoo xam ne seede nañ gis nañ ko mu sàcc ñoom ñu taxaw seede ne kii kat sàcc na nangam ak nangam lu tollu nangam su ko defee bu boobaa ñu mën a saxal ne kii dafa dafa sàcc kon ñaari yooyu saa boo xamee ne amut saa boo xamee ne ki nga xam ne moom la ñuy jiiñ sàcc gi saxalut ne dafa sàcc te amuñu ñaari seere yu maandu yoo xam ne mën nañoo sukkandiku ci ñoom xam ne nit ki dafa sàcc bu boobaa kooko kenn du mën a jàpp ci loxoom ne ab sàcc la ndax la nga xam ne mooy saxal ak sàcc dëgg-dëgg kenn mënu cee teg sa baaraam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne kullul muslimi alal muslimi xaraamun dammuhu wa maaluhu wa irduhu jullit bu ci ne ci moroomum jullitam araam na ci digganteem ak moroomum jullitam li nga xam ne mooy deretam waaye li nga xam ne mooy alalam waaye li nga xam ne moo di ab deram kon loolu liñ ciy dégge mooy nit ki su fekkee ne dafa am alalam dañ ko ko war a sàmmal waaye dañ ko war a sàmmal ab deram itam waaye dañ ko war a sàmmal li nga xam ne moo di ngorom kon yooyu yëpp dañ ko war a sàmmal jullit bi war koo sàmmal ki nga xam ne moo di aji gëm ji yonente bi di waxaat ba tey ne laa yazni azani xiina yazni wa huwa mu'min ki nga xam ne moo di ab jullit day jamono ja nga xam ne ca lay njaaloo day ne na jamono joojo doonatut ab jullit wala yasrabu alxamra xiina yasrabu wa huwa mu'min nee na ki nga xam ne mooy wax ne ab jullit la itam jamono ja nga xam ne moom lay naan sàngara jamono joojee na xam ne du ab jullit wa huwa mu'min wala yasriqu xiina yasriqu wa huwa mu'min saa boo xamee ne jullit bi tamit ma ngay sàcc jamono ya nga xam ne moom lay sàcce moom nekkatul ab jullit saa boo xamee ne jëf yooye yépp nag weesu na bu boobaa mu mën a dem tuubi ko la nga xam ne moo ca war ci ay atte ñu mën koo taxawal ci kawam su ko defee la nga xam ne moo di ak njullitam ñu man koo ñoŋalaat waaye ñu man koo jàppiwaat li nga xam ne moo di ab jullit waaye kon yonente bi saa sallam mi ngi leeral foofu ne saa boo ñetti jëf yooyu nga xam ne moom la lim foofu saa boo xamee ne jullit bi moom tàbbi na ca di ko jëf jamono ja mu koy jëfee moom nekkatul ab jullit waaye leneen la doon ndax la nga xam ne moom lay jëf du jëfi jullit la nga xam ne moom lay jëf du jëfi jullit kon moo tax ci bayit boobu ci la sëriñ bi di leeral ne wa bil yadayni alxatlu mislu sariqa xussaskur allazi kafaaka alfasaqa mu tekke ne wa xiibatun ak jëw namimatun rambaaj akulu riba lekk li nga xam ne mooy riba xussat jagleef na ko bi fammin ñeel gémmiñ mislu xamrin kem sàngara suriba joj naaneef na ko kon loolu nga xam ne mooy bàkkaar yooyu nga xam ne moom la lim foofu nee na ay bàkkaar la yoo xam ne gémmiñ mooy li nga xam ne moom moo ko jagoo muy jëw muy ràmbaaj muy lekk li nga xam ne mooy riba waaye it mooy li nga xam ne mooy naan li nga xam ne mooy sàngara jëw nag buñ ko waxee mbokk yi mooy lan mooy ni ñu koy taarife mooy zikru saxsi bi ma yukrahu min al uyubi allati fiihi fi xaybatin bi lafzin aw isaaratin aw muxaakaat nee na jëw bu ñu ko waxee mooy tudd am mbokk tudd sa mbokk ci loo xam ne bu ko déggoon du ko neex ci ay ayib tudd sa mbokk tudd sa ayib bi mbokk yoo xam ne bu fekkoon ne dégg na tudd ga nga koy tudd du ko neex te it ba nga koy tudd moom fekku ko fa nee na saa boo defee loolu moo xam da nga koo tudd wala da nga koo junj ci moom ay ayib yoo xam ne dafa nekk ci moom nga gis ko junj ko wala nga koy nettali nee na yooyu yëpp benn boo xam ne def nga ko ci rek na nga xam ne jëw nga sa mbokk moomee jëw nag mbokk yi am ak tuuti ak teqale ak li nga xam ne moom la ñuy tuddee albuhtaan waaye it am tuuti ak teqale ak li nga xam ne moom la ñuy tuddee an namimatu kon ñetti baat yooyu dañoo xaw a jegeñe waaye it dañoo wuute li ñuy tudde al buhtaan ak li ñuy tudde al ghiba ak li ñuy tudde an namimatu al buhtaanu buñ ko waxee mooy zikrul muslim bi ma laysa fiihi kon loolu moo di lan mooy wax loo xam ne dafa juuyoo ak dëgg al buhtaan mooy loolu mooy tudd sa mbokkum jullit di ko jiiñ loo xam ne wér na la ne loolu amut di ko jiiñ loo xam ne wér na ne loolu amut sa loolu saa boo ko defee loolu la ñuy tuddee al buhtaan kon loolu mooy duural nit ki di ko waxal loo xam ne amut an namimatu nag buñ ko waxee mooy lan hiya naqlul kalaami min tarafin li axar lil iqaai baynahuma mooy nga toxale ay wax jële ko ci nit yóbbu ko ci keneen ngir ñaawal ak ñagasal li nga xam ne moo di seen diggante loolu mooy li nga xam ne moo di annamimatu di rambaaj te yonente bi saa sallam doon na wax ci xadis ne laa yadxulul jannata namaamun ab rambaaj du tabbi àjjana ab rambaaj du tabbi àjjana kon ab rambaaj mooy lan annamima mooy kon koo xam ne day toxal ay wax joo xam ne nit daf ko koo wax mu jël ko toxal ko ci keneen ngir lan ngir ñaawal seen diggante waaye ngir gàkkal seen diggante kon nga gis ñetti baat yooyu ni nga xam ne noonu la jege ñantee waaye am nañu ak teqale ndax bu fekkee ne jëw la moom mooy ngay tudd sa mbokkum jullit ay ayib yoo xam ne dëgg la sax ayib yooyu mi ngi ci moom waaye moom nekku fa te su fekkoon ne teew na fa loolee du ko neex moo xam nag tudd ga da nga koo tudd di ko di ko jëwee te nekku fa wala mu xawlaa sori nga gis ci moom ay ayib di ko junju wala nga koy nettali loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy tuddee jëw ñaareel ba nag albuhtaan buñ ko waxee mooy tudd sa mbokkum jullit di ko waxal ay ayib yoo xam ne leer na la ne nekkul ci moom wala nga koy waxal loo xam ne nekkul ci moom loolu moom mooy wax loo xam ne dafa juuyoo ak dëgg ñetteel ba di rambaaj nag moom mooy toxal ay wax toxal ay wax jële ko ci nit jëme ko ci keneen ngir lan ngir ñagasal seen diggante nga waxtaan ak nit ngeen doon wax ci dara ba pare nga jóge foofa dem ca ka nga xam ne moom moom ngeen doon waxtaane nga dem ca moom nettali ko te la nga xam ne moom nga ko doon nettali jubluwoo ca dara rek lu dul ñagasal seen diggante kon loolu ay jikko la yoo xam ne yu bon yoo xam ne ab jullit war na koo moytandiku war naa bàyyi xel fu mu toll yu mel noonu ba sàmmonte ak ngorom ba bañ caa tàbbi ndax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min azanni inna ba'da zanni ismun wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma aqihi mayitan fa karihtumuhu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen moytandiku li nga xam ne moo di njortu lu ñaaw ndax njortu yu bari day li nga xam ne moom lay jural nit ki rek moo di ay bàkkaar di njortu ci nit ki ay ñaawteef te fekk na yow li ngay njortu ci moom dara leeru la ci yooyu day jural nit ki ay bàkkaar kon nit ki sooy njortu ci moom na nga njortu ci moom lu rafet rek waaye bul njortu ci moom lenn lu ñaaw te it suñu borom di wax ci aaya boobu ba tey ne bu leen di jëwante bu kenn ci yéen di jëw moroom ma ndax jëwkat mi ngi mel ni saa boo jëwee nit mi ngi mel ni nga tiimoon sa mbokk mu faatu ngay jël ca ndawalam di ca jëfandiku ne na noonu la jëw mel kon looloo tax mu ne ndax kenn ci yéen bëgg na mbokkam faatu mu tiim ko jël ca ndawalam di ca di ca lekk ne na suñu borom subhanahu wa taala bi mu waxee loolu ba pare dane loolu de yéen ñëpp a ko seexlu yéen ñëpp a ko bañ kon nag noonu mu ngeen bañ a loolee bañ koo def na ngeen ko moytandikoo jëw na ngeen ko bañ a defe noonu te ngeen ragal yàlla te tuub jëm ci suñu borom bi subhanahu wa taala yonente bi saa sallam di wax ci xadis ne atadruna mal xiiba ndax xam ngeen lan moo di jëw doon ko wax saxaaba yi saxaaba yi ne ko allaha wa rasulahu aalam yàlla ak yonentam ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko xam jëw de ñun xamuñu ko waaye yàlla ak yonentam xam na ko xaala mu wax moom yonente bi saa sallam ne zikruka axaaka bi ma yukra jëw de bu ñu ko waxee mooy tudd sa mbokk ci loo xam ne bu fekkoon ne dégg na ko dana ko naqari du ko neex xiila ñoom ñu wax ko ne ko afara ayta in kaana fii axi ma aqul su fekkee ne ki nga xam ne mooy sama mbokk moom mu nga xam ne moom lay tudd ci moom ay ayibam wala loo xam ne lu ko loo xam ne bu ko déggan du ko neex su fekkee ne li may tudd ci moom ndax loola ma nga ca xaala yonente bi saa sallam ne ko in kaana fiihi su fekkee ne loolee ngay tudd ca moom de ma nga fa faxat ak tabtahu bu boobaa kon da nga koo jëw su fekkee ne la ngay tudd cay moom ci ay ayib wala leneen lu mu mën di doon ma nga ca moom waaye su ko déggoon du ko neex nee na loolu moo tudd jëw waaye mu leeral leen ne wa in lam yakun fiihi faxat bahattahu su fekkee ne nag la ngay tudd ca moom ci ay ayib di ko waxal ay duur la rek waaye doonut lenn loo xam ne lu am na ñanaw boobaa loolu moo tudd albuhtaan mooy tudd sa mbokkum jullit di ko waxal loo xam ne amut kon loolu moo di ay duur ñetteelu bàkkaar bi di lekk li nga xam ne moo di riba lekk riba riba nag doon loo xam ne lu ab jullit war a moytandiku la ndax nit ki su fekkee ne bëgg naa jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu nungu mu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nungu dana fasoo lekk lekk lu lew ndax lekk lu lew ca la ñuy mën a nungoo ak jaamu yàlla waaye ca la ñuy mën a nungul jullit bi li nga xam ne moo di moo di moo di moo di ay jaamu yàllaam ak li nga xam ne moo di ak ak ak ak njullitam dëgg-dëgg kon nit ki war naa moytandiku bu baax a baax li nga xam ne moo di lekk riba ndax nit ki saa bu fekkee ne bëgg na jaamu bi muy jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala di ko nungu wala ñaan yi muy ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala di ko nungu na fexey di jëfandikoo li nga xam ne moo di moo di lu lew te loolu sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ci sañu bu baax a baax a baax nee na wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami sàkku lu lew farata la ci bépp jullit boo xam ne moo xam jullit bu mu man di doon waaye farata la joo xam ne nit ki daf ko war di taxawee di ko def fu mu toll kon loolu lu ama am solo la te suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim suñu borom subhanahu wa taala dana yëkkati wala dana nërmeel li nga xam ne mooy riba jëpp alal joo xam ne dafa sosoo ci riba suñu borom subhanahu wa taala daf koy nërmeel waaye nag li nga xam ne moo di saraxe nit ki nga xam ne dafa fàggu alalam ju leew ba pare jël ko di ko saraxe te jëm yàlla rek tax kooku suñu borom subhanahu wa taala day màggal alalam ndax lan ndax fàggiwun fàgguun fàggiin wu lew wi nga xam ne moom la ko fàggu ba pare jëlaat ko di ko saraxewaat ci saraxe suñu borom subhanahu wa taala digle ko waaye nag la mu daane la aaya mooy suñu borom subhanahu wa taala bëggut li nga xam ne moo di ak yéefar waaye bëggut li nga xam ne moo di di def ay bàkkaar wala di def loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo tere te yonente bi saa sallam mi ngi wax ci xadis ne laana allahu akila riba wa muukiluhu wa kaatibuhu wa shahiday suñu borom subhanahu wa taala rëbb na ki nga xam ne mooy lekkatu riba ak ki nga xam ne moom moo ko koy jox ak ki nga xam ne mooy bind ngir loole nga xam ne moom la ñu séq mu leen koy bindal di leen ko leeralal ak ki nga xam ne moom mooy seede yi nga xam ne ñoom la ñuy jël ngir ñu seede li nga xam ne moo dox seen diggante kon loolu itam lu ñu war a bàyyi xel la riba nag doon lu yaatoo yaatoo yaatu ndax fi mu toll nii fi mu ëppee ëppee ëpp mooy ci banque yi ndax dañ lay lebal ñaar fukk bëgg a fayiku fanweer te bu boobaa loolu saa bu duggee rek riba day daal di tàbbi ak yeneen ak yeneen yu bëree bëri yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel ci anam googu ci anam gi nga xam ne moom la ñuy jëflantee xam ne riba moom saa bu ko nit ki dee lekk ak dundam du mën a lew te ak dundam bu fekkee ne lew jaamu yàllaam gi mën naa am ay jafe-jafe bu baax a baax ndax xissa bi nga xam ne ki ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon ko tàllal ay loxo di ko ñaan di tàllal ay loxo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan te loola yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kii de ñaanam gi lenn la ci suñu borom subhanahu wa taala du nungu te loola la ko waraloon mooy la mu doon lekk araam la mu doon naan araam la mu doon sol araam looloo tax yonente bi ne kon kooku ak ana nan lan ko mën a nungule ak jaamu yàllaam nan lan ko mën a nungule ak ñaanam kon la sabab sa tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne kooku naka la ko yàlla di nungule ak ñaanam mooy lekk ga muy lekk araam le naan ga muy naan araam la muy sol araam loola moo sabab suñu borom subhanahu wa taala bañ a nungu li nga xam ne moo di ak ñaanam kon loolu itam ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax te yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi waxaat ci xadis bi nga xam ne mooy xadis bi mu tënkee juróom-ñaari bàkkaar yu mag yi ma nga cay tuddaale li nga xam ne mooy lekk li nga xam ne moo di riba lekk riba bokk na ci ya nga xam ne moom la limaale ci juróom-ñaari bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom la jo moom la doon lim ca xadis bu siiw boobee di ijtanibu asamal mubiqat beneen ba nga xam ne moo ci topp mooy naan sàngara naan sàngara bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne gémmiñ moom mooy li nga xam ne moo koy def doonte ne lu mel ni ab loxo am na ci ak cër ndax dana ko jàpp yóbbu ko ci gémmiñ gi ngir mu naan ko waaye la nga xam ne moo ci ëpp ëpp solo te mooy jàllale ga gémmiñ mooy la nga xam ne moom moo koy def te suñu borom subhanahu wa taala daf ko araamal ci ci ci ci alquran waaye bi mu koy araamal sax daf ko araamal ci anam goo xam ne anam la goo xam ne daf koo def tadrijiyan mooy da ko doon def ndànk-ndànk ndax li taxoon loolu mu ko doon def ndànk-ndànk mooy jamono ji nga xam ne jullit ñi nekkoon nañ ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala ñi nga xam ne ñooy yéefar yi nekkoon nañ ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy doog a gëm di dugg ci lislaam dañ doon jëfandikoo yu mel noonu te mënuñoon a tëb tëb bàyyi ko léegi nag suñu borom subhanahu wa taala bëggoon ñu bàyyi ko waaye bi mu bëggee ñu bàyyi ko ci xekk ma la ko jaarale doon leen ko tere ndànk-ndànk di leen ko tere ndànk-ndànk ba nu mujj bàyyi ko te loola am na ñeenti aay yoo xam ne moom mooy leeral ni nga xam ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala doon tere ndax bu ñu demee suñu borom mi ngi wax ne wa min samaratin naxiili tattaxisuuna minhu sakaran wa risqan xasanan suñu borom subhanahu wa taala nee na leen ci garabi tàndarma yi de di ngeen ci jëlee li nga xam ne moo di ak màndi waaye di ngeen ci jëlee wërsëg woo xam ne wërsëg wu wu baax la wërsëg bu baax kon su fekkoon ne dañuy jël garab yi tàndarma yi rek di ko jëfandikoo comme ni nga xam ne noonu lañ ko jële noonu bu boobaa loola dana am solo bu baax a baax a baax te it dana doon wërsëg woo xam ne wërsëg wu ñuy jariñ la wërsëg bu baax lay doon waaye nag suñu ko jëlee di ko nal di ko def sàngara di ko naan bu boobaa ne na loola la mu ñu jural rek mooy mandite la ñuy jural te mandite doonul loo xam ne mooy la gën kon aay boobu la ci suñu borom subhanahu wa taala njëkk a wàcce ci loolu nga xam ne moo aju ci sàngara bi nga xamee ne ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ñi nga xam ne ñooy doogu dugg ci lislaam continuer nañ di def loolu ba tey nga xam ne dañoo continuer di def loolu mel ni li suñu borom subhanahu wa taala wax foofu dese nañ koo dégg suñu borom wàccewaat beneen aaya waxaat ne yasalunaka anil xamri wal maysir yow yonente bi saa sallam ñoom ñi nga xam ne ñooy jël sàngara soosu dinañ la laaj li nga xam ne moo aju ci alxamru wal maysir waaye nag xul fihima ismun kabir wa manafiun linnaas na nga leen wax ne am na ay bàkkaar yu màgg màgg màgg màgg yoo xam ne nekk na ci waaye nag njariñ la ñeel ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy jëfandikoo wa manafiun linnaas waaye nag wa ismuhuma akbaru min nafahima daal di leen ne nag waaye bàkkaar yi nga xam ne moom nga ciy jële de moom moo ëpp fuuf njariñ yi nga xam ne moom nga ciy jële bi nga xamee ne aaya boobu wàcc na nag ñi nga xam ne ñoo yeewu te am xel ci ñi nga xam ne ñoo ko doon jëfandikoo ci jullit ñi dañoo tàmbali ñoom di bàyyi li nga xam ne mooy sàngara si ndax daa mel ni xaw nañoo tàmbalee dégg li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wax ñi ci def sa na ko niiw continuer di ko def Uh, di naan sàngara soosu suñu borom subhanahu wa taala wàcce beneen aaya ndax lan ndax buñ daan julli dañ daan julli bu julli gi jege ñaan buñ ko naanee bu ñuy julli dañ daan jaxase aaya yi wala yu demee noonu wala ñuy jaxase ci biir julli gi te mandite li nga xam ne moom lañ mandi moo tax uh, moo tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy jaxase aaya yi wala ñuy jaxase lenn ci julli gi suñu borom wàcce leen beneen aaya ne yaa ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu borom subhanahu wa taala bu leen di bu ngeen di jegeeti ak julli bu waxtu julli wi di waaj a waaj a tàbbi seeti bu leen mandi bu leen mandi bu leen naan sàngara bu leen mandi ndax su ngeen ko defee da ngeen di jaxase li nga xam ne moo di julli gi loolu itam bi nga xamee ne def nañ ko ñi ci bëree bëri xam ne bis bi moom di nga ci julli juróomi yoon te julli gi nga xam ne moom nga fi julli juróomi yoon ci diggante julli yooyu boo fi mandee mandi gi bu taree xëpp fi ci diggante bi ba mën a julliwaat daanaka du yomb ñu ci bëree bëri jaare foofa itam daal di dégg ca loola ne kon lii daal bàyyi ko mooy li nga xam ne moom moo gën bàyyi ko mooy li nga xam ne moom moo gën am ñu ca des ba tey continuer waaye nag bi nga xamee ne aaya bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala mujj a wàcce ci loolu mooy yaa ayyuhal ladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali seytaani fajtanibuhu laallakum tuflihun loolu la suñu borom subhanahu wa taala wàcce ñu xam ne nag kon sàngara mii nag mbir la moo xam ne mu araam la moo xam ne ab jullit war na koo moytandiku di ko jëfandikoo waaye ab jullit war na koo sori kem kàttanam ndax suñu borom subhanahu wa taala bëggu ko te it jaarale na ko ci ay mbir yoo xam ne képp koo xam ne dégg nga ni mu doon waxe rek di nga xam ne daf ko doon oyofal tere te bëggoon na koo tere waaye bëggoon na koo oyofal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko tàmmoon ba nga xam ne mënuñoo tëb a tëb bàyyi ko kon yooyu ay bàkkaar la yoo xam ne yu màgg-màgg la yoo xam ne jullit bi war na koo moytandiku bu baax a baax waaye war naa moytandiku kem kàttanam di ca di tàbbi ci bàkkaar yu màgg yooyu kon ñu ngi tuub bu baax tey jéggulu di taxawlu foofu di wax ne in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh